Sénégal lu ñu ko moom way bi. ah fu ma ko inspiré mooy bu fekkee ne rek la yàlla bëgg a te yàlla dëgg rek la bëgg mooy Alioune Mbaye Nder tey jii def. ci jeunesse dama contribuer. ci mhm. ci mentalité. Mhm. ci wàllu liggéey mhm. ci sa bopp mhm. ci xam ñoom li ñu doon ñoom it aussi ñu contribuer ci sama carrière mhm. parce que bari ay yu je ci wax ni ma sa métier ma métier sa ma courage courage donc tout le temps ñoom dama benn motivation bu jóge ci ñoom ci man à la limite ñoom sax bokk nañ ci tax may parce que dañ

ak euh, jàmm ak salaam xam naa ñu namoon nañ ma xam na ko yëg naa ko ba tax na tëju bu yàgg bi yëpp c'est parce que ñoom xam nañ ma ci lu baax xam na ma ci respect bu ma am envers ñoom le public surtout les mélomanes su ma génnee damay bëgg tout le temps loo xam ne que lu tolloog li ma leen daan jox la wala lu ëpp doole. mais Nder lii dafa am dafa am solo doy na waar de. waaw mais ayca yàlla baax na. te bëri na doole lool. <laughs> macha allah yàlla ah waa Sénégal xaar leen ko.